par rapport iya. eh, ak arrestation iya. Sonko bi ak sortie procureur bi yéen na ngeen jàngatee mbir mi eh, loo xam ne boo mën ngeen ko partage ak sénégalais ci ay renseignement ak ci ay analyse waaw eh, analyse bi gën a bi may njëkk a def mooy mhm. sortie procureur bi sortie procureur bi waaw boo procureur bi mhm. dafa ay ci kaw Ousmane Sonko mhm. analyser dans le fond tu te rends compte que li ñu toppee woon euh, gouvernement bi au niveau de la CPI. Hum. moom moom la jël delloo ko Ousmane Sonko. situation bi dinaa leen defal contrat de situation bi ci kanam tuuti voilà. Hum. voilà hum. donc donc ça veut dire que Ousmane Sonko euh, nous euh, le passé avait constaté que depuis 2021, mille vingt et un am na ay nit ñu fi ci ay manifestations. Euh, pour ñoom c'est de la résistance hum. dafa am loo xamante du yoon hum. ñëw ko sénégalais ko hum. ñoom ñu xëy euh, droit sénégalais may na bu ñu xam du yoon ñu jàkkaar laax ñoom euh, bañ ko ci mbañ boobu police sénégalais boo xamante dañ ko ne mu d'abord nit ñi ensuite matériel bi moom mu rey nit ñi ne day matériel loolu mooy crime contre l'humanité ci contexte bi ñu ko defee dafa préférer rey nit ñi art matériel ci loolu le Pastef jël yëf yi comme Sénégal depuis booba léegi defuñu dara mu jël yëf yi yóbbu ko Cour pénal international. loolu nag tiital leen ñu dem layoo fu ne ay vidéo yu convaincre kenn léegi ñoom ñu ne parce que loi bi dafa ne pour que waa Cour pénal international, jël affaire bi il faut que ci réew mu amee dara bañ foo am. mais comme dara am fu booba légui ñoom dañu bëgg won cour pénal que léegi dara am na fa ndax ñom topp nañu les mêmes faits. c'est ça que ñu jël les mêmes faits légui ñoom dañ ci enquête mais à charge contre Ousmane Sonko. ça veut dire que le ah. procureur légui le procureur légui bu CPI comme Sénégal jël na affaire bi en charge. day bloquer procédure bi xaar.

dialogue national dafa nekk loo xamante ne Macky Sall dafa xool rapport de force bi am entre moom ak waa Yewwi Askan Wi mu xam ne rapport de force bi boo gisee ci qualité bi Yewwi la ëppee ndax Macky Sall ñoom naam bëri nañu mais parti fa nekk yëpp amuñu nit. waaw parce que ñi fa nekk ñan ñoo fa nekk euh, boo xoolee parti fa nekk c'est le PS. PS bo xamantene ancien PS bo xamantene tay quasiment dafa disparaître ah. parce que euh, ça fait des années demuñu élection ah. waaw so xolé ñu Moustapha Niass kan mo fa nek comme militant so xolé euh euh Diagne Fada ban militant la am donc c'est un grand parti où le seul euh, euh, li leen boole mooy xeexuñu Macky Sall sànni ñu xeet Macky Sall jàkkaarloo ñu wax Macky Sall

bu paree ma wax la ne pour man analyse ma ci def moy Macky Sall n'a jamais renoncé à un troisième mandat. Ah. renoncé wu ko. boo dégloo dafa ne dafa njëkk ne yoon bi may na ko constitution bi may na ko mu présenté mais moom moo jéeg moom moo bàyyi. bu ah. xool situation bi mu bàyyi te ma yoon may na ko suba bu xoolee mu ne situation bi ma bi ma xoolul démb ak bu tey du Hmm. donc il peut revenir mais pour revenir.

Mm-hmm. erreur moy mooy lan dañu bàyyi Macky Sall depuis 3 ans muy def lu ko neex ci salfaañee ay droit doomu aadama. pardon de affaire bi lérul gars yi nee la bu baax. ma ne. waaw ma dañu jàkkaar bàyyi Macky Sall depuis 3 ans muy salfaañee droit doomu aadama gratuitement. Mm-hmm. ku mu neex mu tëj te du mujj fenn. Mm-hmm. mu jël Pastef suite de l'État. Il y a eu beaucoup de délais, les chefs d'accusation sont c'est entre 20, 25 et 30 ans de prison. Juste pour le parce que nous avons eu, nous avons eu, nous avons eu, nous avons dans le pneu, bloqué pendant trois jours, donc, ils ont pris nous, nous dans le monde. Donc, ils pensent que c'est le moment maintenant d'attaquer de, de, et de finir avec Ousmane Sonko comme ça Macky Sall am jot créer situation pour ñëwaat c'est pour ça que li important ci parti bi ñuy wax nii ñi Sénégal ni ko def ñun ñoo ko def organiser wu bonne stratégie pour xamante pour bu permettre ñi nekk ci terrain bi ñu mën a gañe xeex bi mooy lan décider les li, li, li, ak cible mooy cible boo xamante ne qu'on ko boo xeex ak nit naa ne ah kii moo ëpp doole mais su ma ko dóoree ci bët su ma ko dooree entre ses jambes su ma ko dooree ci bopp su ma ko dooree ci foie dina daan donc il suffit pas que ñuy taal taal taal il faut que ñuy jàppale xale ñi xam li ñuy war a def pour que Macky Sall xam ne li mu antaan nii Sénégalais duñ ko nangu suba duñ ko nangu gannaaw suba l'autre chose c'est de mobiliser parce que tey boo xoolee ñiy xeex ci terrain bi il faut pas deux mille jeunes sur la population de Dakar. Donc, on veut qu'on a du mal à convaincre la population. Non, Gangi progressivement. De plus en plus, il y a du monde qui sort. Mhm. D'accord.